fa sax euh, destination Sénégal moom la ñuy xool tur bi fan la cosaanu Abdoulaye Diop lañ ci àndal Abdoulaye maa ngi lay nuyu di la ziar fan la ñuy ànd ak yow tey ci Petite Côte bi. waaw daleen ak jàmm ñi ngi leen di nuyu di nuyu nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan tey nag eh, ñi ngi ci biir eh, Fadiouth ñu bëri dañuy jaawale Joal Fadiouth mais Fadiouth eh, pont bii nii moom moo ko taqali ak Joal pont bii nga xam ne dénk la boo ñëwee moom ngay jéggi pour dugg ci biir Fadiouth nga xam ne dëkk la boo xam ni yu bëree ngi fi yi nga xam ne war nañ ko mën a gëstu mais tur bi nag tey moo ñu witteeloon ñu xam lan mooy faajut lan moo ko waral dañuy laaj xëy na ñi nga xam ne ñoom la ñuy dajeel ñi fi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk maman noo def. maa ngi fi. tur bi naka la. Ndeye Sali Diouf. Eh, dañ la doon laaj comme yow Fajut nga dëkk ñu bëggoon a xam turu Fajut moom lan lay firi. ah Fajut mii. Mhm. ah naaj bi fekk ko fi ñu di ko wax Fajut. Eh. Fajut. mooy suuf bi. mooy Fajut suuf bi. Eh. Hmm. mooy suuf bi. suuf bii nii moom moo tudd Fajut. Oh non suuf bi moo tuddoon fa Katuc. Mhm. léegi nag paa yi def ko Fajut. voilà. <laughs> jërëjëf jërëjëf kon ñu ngi koy jaajëfal. xam naa ñëw nañ ci biir euh, Fadiouth ba ci benn place publique bi ñu fekk fii njongeem fii moom lañ koy woowee fekk nañ fi ay kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk euh, xanaa ñu nuyu leen rek papa yaa nekk ci digg bi na ngeen def. waaw waaleykum salaam. tur bi naka la. Tanis. Tanis Tanis Tanis Sarr Euh, turu Fajut de lañ bëggoon a xam fu mu cosaanoo. Fajut en séeréer le nom déformé. c'est Fajut Achuc ça veut dire le banc de sable. Hmm. voilà le mot déformé peut-être est Fajut. je crois bien vous aurez d'autres ah, versions. papa tur bi naka la. Makodde Ndiaye. sant bi est-ce que doo ko changer. non sant sant bu rafet bi xanaa. <laughs> <laughs> sensibiliser. <laughs> Eh, <laughs> ok eh, fi xam-xam. Mhm. parce que dama fi ñëw rek. Mhm. yàgg naa fi nag mais wax dëgg yàlla. Mhm. man ndar laa cosaanoo. waaye fii laa nekk. nekk naa fi dëkk bi baax na neex na waaye nag cosaanu la ko indi. manuma ci wax lu bari. xam naa kii daal lum la ci wax. walla ñee toog. moo gën a wóor moo gën a viir. nag nga def ndànk. fii ku sant Jóob ku baax amu fi yow nag boo def dof la <laughs> waaw ah, njóobeen yi daal xam naa ni que ni mais xam naa ne am nañ fi cër <laughs> am nañ fi cër <laughs> <laughs> moom mi ngi xas njóobeen yi fi yi fi nekk gis ngeen ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ci place publique bi ni laaj leen li nga xam ne moom mooy cosaanu euh, Fadiouth dañuy dem rek àggali ak ki nga xam ne moom mooy chef de village bi dana ci indi ay yeneen leeral kon Jaafara ñu dem rek euh, nga topp ñu dem ci pont bi nga xam ne moom moo jëm ci cimetière yi ay ci ñu ànd ak moom kon dañuy daje ak ki nga xam ni moom mooy chef de village bi mooy monsieur Pierre jox euh, mu andil ñu leeral ci li nga xam ne rek moom mooy cosaanu turu Fadiouth kon xam naa mi ngi nii moom père ñu ngi lay nuyu. ñun maa ngi leen di fay. tey dañu ñëwoon euh, ngir rek gëstu cosaanu turu Fadiouth bi euh, lan lay firi. waaw ah, Fadiouth nag yàgg nañu ko créer que am na ñuy wax ne ñu ngi koy sàkk au du au onzième siècle. donc xaw na yàgg. mais tur bi li indi Fajut cest benn kii bu ndaw la woon benn îlot bu ndaw boo xam ne li ko waroon mooy ay bancs de sable cest suuf yu yu kawe kawe yu jóge ci géej gi bon géej gi géej gi dafa wóor dëkk bi puisque dëkk bu ndaw la woon mag yi ñoo doon jóg di dem di uti ay xol di di xeex ak géej gi pour mun a am fu ñuy dëkk waaw tool bi daal foofu la jóge dañu wax benn îlot bu ndaw ak entouré par des bancs de sable sable ci séeréel juc la ñu koy wax mooy benn îlot ak ay suuf yu bari bu ñuy wax juc mooy loolu mooy indi tul bi Fajut. ñu ngi koy jaajëfal euh, moom euh, chef de village bi nga xam ni moom mooy Fajut lu mu wax rek ci suuf si nga xam ni moom dafay am bain de sable nga xam ni dafay xaw a kawe te jege géej gi euh, loolu nga xam ni moo tudd juuj si séeréer waaye aussi mu nekk benn ilo nga xam ni li ko war moom mooy ndox nee na moom moo tax foofu la turu Fajut jógee. ñu ngi koy jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen tamit yi nga xam ne yéen a ngi seetaan ay ba beneen jërëjëf. ñu ngi lay sant yow itam Abdoulaye Diop euh, Diafara Ba ak euh, Khadim Ndiaye merci beaucoup 7 euh, h jot na dañuy dem RFM tey jile ñuy dalal Babacar Thioye Ba bokk ci coalition taxawu Sénégal bi xalifa Babacar sàll jiite bu 8 jotee ñu dellu si ci ñaareelu pàcc bi incha allah tout jàpp nañ ne élection dafa war a am te dafa war ci jamono bañ ko eh, foogoon leneen li mooy wax nañ ko avant ba ñuy commencé di wax waxu report booba yegsee guñu woon sax fii Khalifa Ababacar Sall président Khalifa Ababacar Sall wax na ko ay yooni yoon ne taxawu Sénégal ak coalition xalifa président àndul benn yoon ci randal élection yi waxaat nañ ko keroog ca samedi ba nga xamee ni président de la république Macky Sall jël na wax na ak askan wi ne leen jël na dogalu puus dini décret bi nga xam ne moom mooy convoqué électeurs yi ci élection yi booba def nañ conférence de presse xalifa Ababacar Sall ak Moussa Tine jël nañ fa kàddu gën a dëgëral suñu taxawaay ak suñu ñàkk ànd ci randal wala toxal bi nga xam ne toxal nañ ko Euh, élection yi li Macky lay mooy euh, élection yi dañoo bëgg ñu ci war a bokk ñëpp bokk ñu jàpp ni dañoo am euh, lu ñu leen def te jaaduwul ci seen dossier de candidature ñu mën koo jooyanteeg yooya wax na itam yeneen waaye lii mu def bu doon 2019 ba ñuy seppi Khalifa Karim bu ko defoon ngeen jël li xanaa. waaw non non xam nga xam nga 2019 moom li xew ñëpp xam nañ ko li xew ñëpp xam nañ ko mooy Karim. Wade ak Khalifa Ababacar Sall génn nañ leen ci élection ci anam yoo xam ne tegul ci yoon booba conseil constitutionnel bi ñuy ŋàññ tey moo ko defoon te ñoom ñëpp dañ cee àndoon tey bu Macky Sall taxawee dina di lay comme ni nga ko waxee parce que ay lay la mais ay lay yu tegul fenn mën man ma jàpp sax ne du waxu dara keroog ku gis Macky Sall miy wax ak askan wi di nga xam ne kii nekkul parce que moom ci boppam la muy wax xam na ne taxawul moom ci boppam gëmu ko lay na nag ba jël dogal boo xam ne muy décret boobu nga xam ne teguwul fenn fenn fenn mënuñ ko teg fenn foo xam ne méngoo na ak yoon moo tax décret boobu mu jël ko démb xaar ba conseil ba assemblée nationale voté loi mu koy doog a génne parce que leer na ko den décret boobu teguwul ci yoon li am nag mooy euh, lay yi Macky Sall jox ñun ñëpp xam nañ ne du layu dara dem na sax ba naan am na candidat boo xam ne jàpp nañ ko ci ay affaire double nationalité ay waxu tappale la waxu kasaw kasaw la mais yéen bu ñu leen bàyyee ngeen bokkee xanaa war nañoo mën a bàyyi ñeneen ñu bokk. comme bokk rek a leen intéressé woon. xam nga élection dafa nekk mbir moo xam ne dafa am nañ koy bokkee xam nga euh, gone gu am moins de trente cinq ans mënu bokk mag mu am lu weesu juróom-ñaari at juróom mënu bokk. juróom-ñaari juróom ñaari fukk at ak juróom mënu cee bokk dafa am suñu charte réew dafa teg ay conditions nii la ñuy bokkee ci élection. charte yooyu bu ko boo ko respecté da ngay bokk naam sax conseil concerné mun na def liggéey boo xam ne du liggéey bi ñu jàpp ne liggéey bu jaar ci yoon la waaye bu conseil constitutionnel xasee ba dogal président Macky moo ko wax de te ba mu koy wax dafa wékku ci constitution wékku ci li conseil constitutionnel di wax mooy dogalu conseil constitutionnel kenn mënu cee dellu si comme conseil constitutionnel nee na ñii ñooy candidat ba ñu war a jëm ci ay. ñu faral moom nañu moom delluwu si euh, la ko yoon may di signe décret ak dindi décret ca la yem waaye waxul damay fomm élection ak dama koy toxal. waaw loolu xam nga bu ñu bu ñu waxee rek te te yàlla tax teg ko ci yoon décret bi Macky Sall jël toxalul élection parce que Macky Sall amul sañ-sañu toxal élection waaye lam ci jublu woon ca samedi ba mooy xam na ne ca guddi. nit ñi war nañoo jaar RTS am na sax ñu jotoon enregistré am ñooy waaj a la mu bëggoon mooy bloquer processus bi foofu la illégalité bi nekk parce que Macky Sall amul benn sañ-sañ ci élection présidentielle bu dul jël décret boo xam ne ci lay convoquer le corps électoral. te yoon may ko tamit mu faase décret bi. yoon may na ko mu faase. naam ak caay-caay mën na caa laxasu comme li nga wax euh, bloquer processus bi. waaw bloquer la ci jubluwoon. waaye bu dee sañ-sañ rek moom mën naa jël décret. dindi dindiwaat ko. waaw mais xam nga décret dafay wéeru ci yoon ci loi yoon bu la mayee sañ-sañ yoon bi la may sañ-sañ dala koy may ci condition yoo xam ne ci nga ko mën a exercer amul dara dara dara dara lu waroon mun permettre Macky mu jël décret faase décret bu njëkk ba parce que la mu wax ñun ñëpp xam nañ ne waxu tappale la la mu wax ay suspicion de corruption ay soupçon de corruption maanaam ñu ngi jiiñ ay nit guerre waa jiiñ ay nit ay guerre nga ubbi commission d'enquête parlementaire commission ba nga sanc ko tey ëllëg sa pareegul liggéeyam commencé gul sax liggéeyam nga ne dangay ànd àndi arrêté processus ci loo xam ne amugoo ci ay firnde ma yaakaar ne donc même bu dee yoon may na ko sañ-sañ ci signature am mu faase décret boo xam ne moom moo ko jëloon yoon na nga ko ko mayee moom defeewu ko noonu comme ni ñu ko waxee mbirum saay-saay la. nan la ko waroon defee la daf ci waruloon dugg xam nga comme commission d' enquête parlementaire am na te may fàttali ni ñun dañoo bokk ci ñi voté commission d' enquête parlementaire lu tax ñu def ko parce que dañu bëggoon leerlu dañu buggoon xam la xew conseil conseil naam sax suñu candidat jàll na waaye comme bëri na candidat yi Moussa Diakhaté ngi ci commission des lois nee na ba ñuy xool yi fii di loi démb ba ñu koy xool ci commission yéen seen député bi ñaan sanu jonn ñu koy ñaanal euh, mu tane bu baax ndax euh, la xewoon démb foofa moom sanu jonn moom ci kàddu Moussa Diakhaté nee woon na ci turu taxawu ànd nañ ci ñu euh, indi proposition de loi bu PDS bi voté ko xam xam nga li musaa Diakhaté di wax moom rek lay engagé xam nga li am solo taxawaay ba nga xam ne président Khalifa Ababacar Sall ak coalition Khalifa président am nañ ko keroog li am solo mooy taxawaayu député taxawu Sénégal démb ci assemblée nationale leer na askan wi yëpp ne taxawu Sénégal ànduñu ci randal wala toxal élection yi la musaa Diakhaté di wax nag moom la engagé mais man xam naa suñuy député xam naa député Sanu Dione xam naa ne nit ku engagé la xam naa ne nit ku dëggu la la muy wax ci biti moom lay wax ci suuf donc la Moussa Diakhaté di responsabilité du taxaw di wax loo xam ne wóor na leen du dëgg te foofu lañ toll xam nga ñu nekkal nag aussi du ñu jomm lu leen neex wax lu leen neex def te ñun mun leen topp ci taxawaay boobu ndax ñun ay responsable lañ mais la may jàpp man mooy démb suñu député yi ma leen di delloo njukkal ñoom ak député opposition bi yëpp seen taxawaay ba ñu am ci biir assemblée nationale taxawaay boobu mooy taxawaayu tax taxawu Sénégal mooy taxawaayu xalifa président. <laughs> nga dafa dafa war a am. war a am ak dana am lu wute la euh, comme li ngeen jàpp ne dafa war a am ban taxawaay ngeen di am dangeen ngeen di wéyal seen campagne wala. non xam nga xam nga xam nga dañoo nekk ci dëkk boo xam ne même bu dee Macky Sall naxasal na démocratie ak république euh, néewal na doole assemblée néewal doole justice ñun dañoo jàpp ne ci texte boobu Sénégal état de droit la xeex nañu xeex ba ñu waroon xeex ca biir assemblée démb loi bi voté nañ ko. am na yoon yoo xam ne yoon may nañu ko dinañu xool yoon yooyu naka lañ ciy jublu pour jéem a seet ni ñuy fexe ba lois bi ñu voté démb te ñu jàpp ne méngoowul ak constitution bi ñu mun ko abrogé. Mhm. bu ñu ko abrogé nag jàpp nañ ne bu waa mun nañ dellu si fañ ne woon maanaam jëm ca élection yi waajal élection yi. Macky kay moom euh, démocratie ku koy tudd doo ci boole turam xanaa euh, waaye itam euh, gis nañ ñu bëri xëy ne jaay doole am na ci démb assemblée waaye pour rétablir la vérité xam nga ku nekk la yoon mooy da nga koy def li indi coow li mooy député yeew yi ak sans doute seen député dañ ni dañuy bloqué yëf yi ndax discussion di waxtaan du am jël kàddu du am ci biñ ne dañuy waxtaanee yëf yi loola sañ-sañu député la mu taxaw ne sàkku naa ci assemblée waxtaan bañ a am ndax euh, sañ-sañ boobu tam moo taxoon député Yewwi yi taxaw ne dañuy def ay question préalable euh, yendal yëf yi guddal jëli bi guddal jëli ba mu gudd te loolu loo leen ko may euh, est-ce que tam taxawaayu député yi démb mooy taxawaay bi bi gën yow guddal nga jël ñii ne duñ discussion nga ne da ngay bloquer assemblée bi sàndarme yi dugg fa génne leen mënul woon ñàkka xam nga dafa am ñaar ci li xew démb bu njëkk mooy assemblée nationale dans une démocratie en tout cas ñun forme démocratie bi nga xam ne moom la ñu mooy bërëb bi nga xam ne fa la ñuy waxtaanee fa la ñuy càmbare bu ñu bëggee nag jàllale loi boo xam ne am na solo bu toll nii war noon ñu mën a waxtaan te suñu député yi li ñu sàkk woon mooy ñu waxtaan ci proposition de loi bi parce que am na lu ñu ci mënoon a wax pour convaincre député yi ne leen lii baaxul ci Sénégal baaxul ci démocratie méngoowul ak constitution bëgg waxtaan nag ñu tere loxo loolu man ci démocratie bu mel ni Sénégal rek laa ko gisee ay député ñoo xam ne ñoo toogal askan wi ci assemblée nationale askan wi yónni leen ñu am ay mbëbët am ay ñu yónni leen ay xalaat askanu Sénégal yëpp d'accord ne loi bi baaxul député yi leen di représenté bëgg ñu waxtaanee. mais loi règlement moo wax ne bu euh, waxtaan discussion mën na bañ a am. ça aussi. waaw si légaliste. waaw waaw légaliste ça devrait bi moo mun nañoo waxtaan avant ñuy voter xam nga ñaari ñaari règlement la mun na nañoo waxtaan avant ñiy voter comme mun nañoo bañ a waxtaan waaye lii gën a garaaw te loolu laa bëggoon wax mooy leneen li xew assemblée mooy ci Macky Sall rek lañu gisee pour ñu voter loi dañuy dugal gendarmerie biir assemblée nationale. loolu aussi est-ce que yoon mayewu ko bu fekkee ne am na perturbation euh, président assemblée nationale mooy assurer police bi. waaw mooy assurer police bi waaye war naa tax mu jël GIGN dugal ko ci biir assemblée nationale di malmener di agresser di brutaliser ay député ñoo xam ne. dañoo am immunité nekk seen biir fi nga xamee ne foofu la seen war ma gën a sutee ci biir réew mi ñu ñëw fekk leen foofu brutaliser leen agressé leen par la gendarmerie man dama jàpp ne loolu comme ni ñu ko Macky Sall tàmmale acte de lâcheté la te lâcheté boobu nag dafa yàgg ci nguuru Macky Sall. moom juróom-ñeenti weer yi mu yi ñu ko yokkal ni moom nu ngeen fas yéene taxawee. fas yéene wu ko toog de. parce que ñu lañ jàpp mooy Macky Sall nguuram le 2 avril la jeex. incha allahu rabi yàlla nañu fi yàlla bàyyi moom ci boppam waaye comme moom kàddoom bu dee am na kàddu aussi kàddoom dafa ratax moom moo taxawoon fii ne def troisième mandat te troisième mandat bi. deuxième mandat bi li ci gën a gênant nag mooy discours du 31 décembre bi dafa tàmbali rek ne je suis venu vous faire mes adieux. waaw te normalement war a def war a def discours nag 3 euh, euh, avril. Euh, veille yu défilé bu dee day toog ba léegi comme nee ngeen du toog. waaw Babacar mooy la ma wax rek xam man dama ko yàgg wax. dama ne Macky moom amul kàddu ni jàpp sax ne am nañ ka am na kàddu dañ jàpp ne kàddoom dafa ratax c'est-à-dire kenn mënu koo jàpp lam la wax tey mun na cee génn suba keroog ba muy toog fii 3 juillet naan dafa moom nitu kàddu la c'est un homme loolu yëpp génn na ci ndax moom jàpp na ne depuis le début dafa war def troisième mandat. moom koy ñaari am Babacar Toye Ba. oui soit Macky dafa topp ba kanam bëgg a toog ci nguur gi walla am leneen loo xam ne moo tax mu def li mu def moo ki député te mënee su koo wax xëy na loolu la rek de. man li ma jàpp mooy Macky dafa topp bakkanam bëgg jiite réew mi dafa foog ni peut-être moom dañoo fal buur te ñun nag Sénégal moo suut Macky Sall moo ëpp dayoo seen Macky Sall Sénégal moo jiitu Macky Sall jàpp nañ ne démocratie boobu Macky Sall mënu koo na na saxal c'est-à-dire que day wéy Sall mu neex ko mu naqari ko le 2 avril incha allah dina jox lenge yi comme koy jox nag xaw ma ko mais yaakaar naa ne. processus bi dinañ ko yeggali bu ñu ko yeggalee dina ko jox ki nga xam ne moom la askan wi. mais loolu foo leen ko teg da ngeen wóolu conseil constitutionnel jàpp ne euh, dana teggi euh, la nga xamante ne moom la fi teg wala. en fait dafa fekk ne dañu wote loi boo xam ne ci anam boo ko xool rek di nga jàpp ne méngoowul ak constitution bi ngeen may ma rek mu expliquer leen article 31 boobu ñu soppi dañoo jàpp ne mun nañoo toxal élection yi jusqu'au 15 décembre ñu teg ci beneen alinéa. ne kii fi nekk jiite réew mi day continuer di jiite réew mi ba keroog muy jox lenga ngay euh, ki ko ki ko wutu loolu doon loo xam ne day yokk mandaaw kii fi nekk or boo jëlee article vingt sept constitution bi lan la wax mooy mandat bi juróomi at la mënul du juróomi at ak benn fan du juróomi at ak dix mois ñu dem ci article cent bi alinéa sept article cent bi ne lu jëm ci forme républicaine u état bi mode d'élection wu président la république nombre ak durée mandat bi kenn mënu koo soppi article alinéa huit même article bi cent trois dellu si ne article alinéa boobu ma wax léegi nii boobu tamit kenn mënu koo soppi ñu jàpp ne donc comme kenn mënul soppi durée mandat bi article 31 alinéa bi ñu wote démb article boobu méngoowul ak constitution mais la gën a neex pour pourquoi ñu am yaakaar ni conseil constitutionnel dina dellusi si parce que conseil boo leen fàttaloo 2016 ba Macky Sall duggee ci mbirum tappale pour seet nu muy génnee ci la mu waxoon parce que daf ne woon day def cinq ans réduction mandat bi dafa saisir conseil constitutionnel pour avis conseil constitutionnel jël avis ne du avis décision laa jël ca biir décision bi lan la conseil constitutionnel wax daf ne mbirum mandat moomoo ko moomuloo ko kenn amul sañ-sañu yokk ko wala wàññi ko conseil constitutionnel ko wax de te ba mu koy wax ba mu koy wax dafa jox boppam pouvoir d'interprétation de la constitution yamul rek ci contrôle de constitutionnel dafa jox boppam pouvoir d'interprétation de la constitution ne le les mandats la durée du mandat est intangible maanaam clause yi nekk ci mandat bi dafa nekk clause yoo xam ne clause d'éternité la kenn mënu koo soppi ci boor bi wala ci boor bële comme conseil nag moo ko waxoon tey dañuy dellu ci conseil xanaa conseil la mu waxoon du ci dellu si naam sax réew mi bari na ñoo xam ne dañuy wax dara di dellu si mais man yaakaar naa ne conseil conseil la mu waxoon di ci dellu si. am na ñu ni da ngeen di signaler gauche jàdd droite lii Macky def sax ak i gaayam ànd ngeen ci lool ndax noppeegu leen woon ngir soobu ci élection yi ak yooya. Euh, euh, loolu moom loo cay tontu. Babacar Babacar yow moom yow yaa wax. waaye ña nga xam ne jotul kay <laughs> waaw yow nga xam ne gis nañu boobook léegi ñuy mottali yéene dugg ci réew mi fu ne ñu dem fa ba barki de moo Ndiaye suñu candidat xalifa Ababacar Sall jóge podoor ak daggana dem seeti nemmeeku askan wi déglu leen dolleeku xalaatam ak xalaatu askan wi kooku pare na man keroog ba ma demee suñu siège mi samedi mi dimanche na ma fa gis mooy kandidaa bu pare woon pour campagne candidat bu pare woon pour jëm ci Sénégalais yi wax ak ñoom déglu leen partagé ñoom projet loolu man laa gis jàppuñu mu benn yoon ne ñun pare wuñu mais àndu leen ci li ki waaye woote gi Macky Macky woote dialogue bu bees moom da ngeen di dem. yàlla tere. ah bon parce que munoo def li ngay. ah non mais yéen tamit taxawu ñii dañ naan dañuy dialogue ji ñii dialogue wuñ non non non Khalifa Sall keroog ci conférence de presse wax ko mu leer. Mhm. du ma ca dem. ah du ma dem parce que. Khalifa waxoon tamit fu ñu woote dialogue mu dem. waaw mais dafay dialogue biy defar la ñuy dem waaye yàq ba pare. ne da ngay woote woote pour ñu waxtaan ci lan Macky bu bëggoon waxtaan kay. bu ngeen demul jël ak waa ji kon ne toog fi de. waa ji du fi toog parce que man li ma am yaakaar mooy sénégalais yi am nañu fulla fulla boo xam ne bu buñ ca yeggee dinañ jàkkaarloog Macky Sall parce que nag dafa jot ñu jàkkaarloog moom. ci naka ci naka. mais jàkkaarloog moom xam nga dañoo nekk ci réew moo xam ne wax naa la am na loo xam ne yoon nañu ko may te yoon lu mu ñu may nag bëri na yoon may nañ ñu dem jàkkaarloog justice yoon may nañu ñu jàkkaarloog nguur gi. te incha allah su Macky Sall nekkee ci la mu nekk nii tappale beeg. xam nga yéen yéen a yóbbu justice mais askan wi ci wàllu boppam naka la naka ngeen euh, noo leen jàppe noonu lay jàkkaarloog Macky Sall bu boobaa. parce que li ñuy wax ni ndax démb da bëggoon 23 juin bu bees waaye sottiwul loolu moom euh, li Georges di wax mooy loolu nu ngeen koy jàngatee nu ngeen gisee taxawaayu askan wi ndax euh, wuyu si wuñ leen ca buntu ensemble. waaw xam nga loolu. yéen ñëpp fi ngeen nekkoon 23 juin 23 juin dafa nekk loo xam ne y avait un travail de conscientisation de sensibilisation boo xam ne def nañ ko ba askan wi xam li nekk en jeu du ma ne sax askan bi xamul tey li nekk en waaye temps de préparation bi nga xam ne. moom maanaam dañ leen bett daal. comme toujours am nga am nga am nga dama koy faral di wax Macky dafay xeex ak nit fay làmp bi takk la di dóor fay lamp bi takk la di dóor moom moom façon xeex boobu lay xeex. man jàpp naa na loolu xeexu tàppet la de. ah yaa ko wax de. Ah, ah. yaa ko wax waaw kon baax na Babacar Thioye Ba euh, bu taxaw Sénégal jërëjëf jërëjëf Georges jërëjëf soxna Naata. merci beaucoup Babacar Fall Georges Détié Diop ak seen gan euh, Babacar Thioye Ba bu taxawu euh, Sénégal sant leen gërëm leen di leen ñaanal une excellente journée ak programme yu rajo Futur Média ñu dellu si ci ñaareelu pàcc info matin jot na ci kanam bu soobee yàlla dinañ ànd ak Abdoulaye Cissé ci jàngat bi tey euh, muy li xew ci réew mi jamono ji ci wàllum politique ak doxalinu président Macky Sall dina ci taxaw tuuti Abdoulaye Cissé et suñu gan mam booy jaawo nekk candidat ci présidentielle bi 8 heures 45 minutes laata loolu ñu soobu ci xibaar yi ñu yaatal ko ak bu Diouf